descendez hey wàcc leen taxaw leen benn par benn taxawal ni ana borom oto bi taxawal noonu yow wàccal taxawal fi yow da nga def yow. waaw wàccal. 4 5. hey taawal ni yow. hey hey hey foo jëm foo jëm taxaw leen nii benn par benn si en ligne si deux hey hey kaay taxaw fi yow da nga dof yow xanaa foo jëm yow yaa moom nit ñi